xibaar bu nakari te tiis lool daa dina dal ci première dame Marième Faye Sall di soxna ba njiitu réew mi Macky Sall Aïda Amar di kenn ci ay meilleur amiem moom moo dal di génn àdduna gannaaw ba ko feebar tëralee woon ci diir bu gàtt ci Tunis Aïda Amar nag def na malaise bi yàggul dara fii si Ndakaaru première dame xaritam daal di ci dugal loxoom fexe ñu évacuer ko ci clinique bu mucc ayib bu nekk ci capitale tunisienne bi nga xamante ni sax fa la mujjee mujjee génn àdduna ganna na ko yàlla soxla daal di koy jël néewam nag dinañu ko indi bés yuy ñëw fii si ndakaaru bu ñu ko fas yéene denc ci fàttali Aïda Amar moomee doom bu jigéenu ndem si yàlla mu du Amar la woon di ancien numéro euh, de URD ndem si yàlla Djibo Leyti Ka équipe Dakar Buzz yëpp ñoo ngi koy jàll première dame Mariam Faye ak famille yam te koy ñaanal moom Aïda Amar yàlla yërëm ko te xaari ko ci aljana yu gën a kawe